bàyyi ma jël ko ambiance ñu liggéey ñaari rakka la العقل والشمل والعلم بفضل من جاء بالفحص والطلب ومن شكر الله تبارك وتعالى في خيره يصاب بكل ما من الخير يستفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره خيره تبارك وتعالى يستفيد لنا خيركم غيره وتوبوا فيه اليه تبارك وتعالى من جمله الاسيان فانه يغفر لكم ويغفر لنا غيركم زي الطغيان وتوجهوا إلى من الكتاب والسنة والإجماع إن الله تبارك وتعالى يكفيكم الأمر فيه الاتباع بجائز الصلاة المؤتية رضي الله تعالى عن الإمام الخبيث الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وربنا لنهتدي وما من الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا من كل شيء كنت من كل من كل من رسوله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 am sotti tey yàlla ko yàlla nangu tu nangu julli yëpp ak jaam yàlla gi rek la ci yàlla am soxla def mu tere nga bàyyi moom rek ma dum ba sant yàlla ba noppi man maa ngi ci kanam suñu borom di ko jéggalu di jéggalu waaye jullit yëpp di jéggalu waaye suñu wayjur di jéggalu waa di jéggalu waaye ku yaakaar bi ku di jullit te sama aadama ba kër adduna tukki képp ku wax baatu ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ak yonent yi ko jiitu te gëm ko ngir yàlla yàlla yàlla jégal yëgal ko dootul topp dara yàlla yàlla texeel texe boo xam ne ci ak texeel dootul topp mukk gannaaw loolu kilifa suñu wasila di Cheikh Mouhamadul Muntaxa tey si yaay fedd suñu jaayante moom ngir yàlla ak yonent bi ak te yeesal lépp ci moom di siyaare suñu wayjur suñu sëriñ di Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdou Fati gannaaw siyaare yooyu nag maa ngi dénk sama bopp di fàttali sama bopp di leen ci li ñu boole dénk muy leen yàlla boole digal muy jaamu yàlla yàlla ak topp yàlla ragal yàlla mi ngi xame mi ngi feeñe ci sax ci li yàlla digle di ko jëf daw ay teram loolu mooy ragal yàlla topp yàlla mooy lépp lu yàlla digle ku dikk sa kër ku dem bàyyi lépp lu yàlla tere fu mu nekk sa tànk du fa jëm jaamu yàlla nag ci jaamu yàlla lañ koy def te sëñ bi bàyyiwul dara am noonu sax moom taxaw na fi nekk itam di suñu kilifa li mu wax ñëpp dégg na ko li muy jëf ñëpp gis na ko ni mu mel ñëpp gis ko kon nag bu fekkee topp gi ñu topp sint Tuubaa dëggal ci moom dëggal ci noonu war na roy ay jikkoom ak i ak i ndigalam te bàyyi ay tereem rawana si nag fii ndax barab bii moom la ma li ci daa wax daal di fàttali man doom fi dara lu ma ab gardien man doom cheikh du ma xalifa du ma borom barke gardien cheikh abal rek laa waaye moom mi moom dëgg sa sosal ko lam ma dénkoon maa ngi koy teg fi sama kanam gis ba te dina ko fàttali sama ba dina ko fàttali mooy def ma waxoon ne daaru marnaan am néeg la ci biir daaru muxti daaru muxti kër la ci biir Touba mooy borom dëkk mooy dëkk bi sëñ mooy borom dëkk bi kon nag loole moom wax moom la dëkk bi ñëpp ko bokk mooy Touba kër gi maag ñëpp bokk bokk moom bokk daaru muxti néeg bi nag man la yàlla teg ci bunt bi tey ma di ko wattu ma di ko wattu bëgg naa ko fi nekk bëgg fee nekk nekkin wu dal wu seen soxla su am benn problème nga war di ma ko wattali wattu gi nag weesuwul li fi seen doon bëgg muy li yàlla bëgg li fi seen doon bañ mooy li yàlla bañ ngeen bëgg li ma li mu doon bañ ngeen bañ li ma ko ku ko defal jàpp na day suñu diggante leneen lu mu doon rek mën naa ko ñëw waaye nag li nga xam ndénkaan la ci man maa ngi fas yéene fii maa ngi dund bunti nekk saxaaba lu ñu ma muy dëkk door ma am bii lépp lu mu doon dara képp ku fa jëm si te jëm noo fa a jëm see boo waroon dër yi da mu fekk sa boo dikkee dëggale ko ngay buur ngay baadoola ngay mag ngay ndaw ngay mbokk ngay jàmbur loolu waxtu mu ne maa ngi leen ko fàttali te fàttaliku dara lu bëgguma jëfe kenn dara lu jàmm salaam la man waa ab yéene naa la maa dëkk ab jullit bu ne man na maa dëkk bu tijaan man naa dëkk murid man naa dëkk xaal ku dul jullit rek man naa dëkk gannaaw loolu mën na waa dugg ko milliardaire mën na waa dugg miskin ndax loo bari la bari la lu la ko añaan mukk te ñaan yokk te lu ma la ca ñaan te lu ma la ca tooñ loo néew néew doole yi du ma la béeféer du ma la xeeb te loo mën dimbale loo mën jàpp sama jàmba te du ma la béeféer yi ki ma mënta dëkkal rek mooy saay-saay bu féetéerlu ne li yàlla bañ daa ko def si dëkk wala seexabal bëgg fekk naa koy dindi wala naa fi saxal leneen kooku la ku mën doon moom maa moom nangu si ak koo ma doon si daal ci saa si bati jekk naa bu yàgg ndax man suñu yow xam na te bañ ma sama bakkan bii ndax as gor lan waa gën ma doon te sëñ li mu defal bu fekkoon na ay gortu bi tey bàyyi kon taxawoon si ah, wër nuy waxuma daw waaye buñ jógee si toog képp lu nuy gor man ni ndigal saxaabal si dëkk bii ak bëggu sëñ ak bëggu yàlla sama borom waat naa ci yàlla ba ñu ma sama bakkan tey tey bàyyi ma ko suba ak koo man doon leneen lu mu doon jotuñ ci dara loo am yéene naa la maa ngi ñaan yàlla yi teral ñëpp li ma ñaan waxtu wu ne ñaan ma ko yëgal si dëkk dama ñaan na Sénégal gépp maa ñaan yàlla sama borom yàlla na ba kenn dootul gis néegu ñax kenn dootul gis sàkket ga tax ñëpp yàlla teral leen ñu tabax terrasse étage def leen waaye lépp na ànd nu jaamoo yàlla ñun ñu di julli te sant ko yàlla loolu laa yéene ñëpp moom laa ñaan ñëpp dama bëgg nag ngeen xam ne ambaluma kenn naa way te lépp lu ma waay wax ci lu baax yàlla na la yàlla fay lépp lu ma waay wax ci lu bon wala nga yéene ma ko nga fexeel ma yàlla mu si yàlla mosul waaye jéggal naa la ko li ma ci lay këriñ topp ma kenn dara ci dund bi topp ma dara kenn ci fenn jëm ci xel loolu yàlla sama borom laa ko jaayanteel wallaahi al asim du kenn dara. sama digg yàlla ko jaayante loolu nag def ko ngir yéen def ma ko ngir yàlla ma ko def sama xol ma sante ko yàlla ndax man ruus naa li ma tooñ sama bopp ak xam bon gi ma xam sama bopp mooy toppatee kenn àllaxe loolu war naa koo jëm war naa ko gis man kay sama digg sama borom day maa xalaat ak sama digg yéen mu ngeen di ma toppaax waaye man topp ma kenn àq dégg naa ñëpp li ma jullaay si kër loolu seera laa naa ko julli yëpp bu ñu demee ma xëy na yëpp àq bi ma amee te foofa bala dafa yomb te moo ko yëgee du ma la ko mën a baal yàlla la si sama borom mi la bind bind maa ngi koy seeran yëg naa la fii ba doon dem foofu baala xale yàlla bu ma ko xam yàlla bu ma yàlla bu ma ko dégg maa ngi sant ñëpp ñu jéggaloon te fóot yi te bennoo te yéenante jàmm fi ba tàyyi ne Cheikh ci àll bi ni jur di wëtti di yenn xeex ba ngoon kenn du mën sama morom dara kon daal si kala kon loolu rafet rek ci gën te ñëpp xaj na yow man dem bi xëy bi ñëpp nga xam turu xéewal waaye du xéewal am natt la ndax lépp li fi ko fi luñu jariñ waaye suñu borom jublu lu ñuy jariñu lu ñuy mu doon boo ca xiree loolu fekk la ci te njariñam loolu daan kon lu lu ñuy fa lu lu ñuy jot lool rek la kon loolu jël añaan kenn jël mere kenn jël def kenn dara nun fóot xol yi te benn te sax ci leen yàlla digal te sax ci leen Sëñ Tuubaa bàyyil te sàmm ko te sàmm ak jom ak utal te li ñu boole sëñ bi sëñ bi wax ko nun ñu noo ko waxal suñu bopp kenn ku ne la boole Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa campagne la wóolu wóolu sa baay wóolu sa maam rek ba ñu bëgg topp si loolu la ñu judd suñu ba sàmm ko jug suñu maam sàmm ko jug noo suuf nu di ko fooye kon ñun du ñu gor du ñu judd ñu bàyyi pom yi ak yëngu-yëngu adduna yi te xam ne du dara la te kenn ñu ko joxoon dara ñu delloo sa yi te yow gone yi yow judd nañ nañ respecté seen kilifa te jàngale jikko yu baax ak mel yu baax am doom yomb na waaye am doom ju baax yombul te doom ju wax képp doom njur muusum benn njëriñ wax naa fii ba tey jur yar mooy taxaat doom ju wax waaye jur yafal taxaat doom ju wax te jur yafal a xew léegi te yéen a waxal seen ku yafal sumbal ba daan kenn daan baat boobu bu ko fàtte na ngeen yar gone yar bu islam nga nu jëriñ fii moo ñu jëriñ fa la ëllëg tey ji xam na kaaraange sëñ Tuubaa lii kenn ku yàlla bind mën ko bët du ku yàlla bind du ko ñuul du ko weex du na jëpp yàlla dafa ne ko na ko kaar na ko saay na bati nangu na ko ba te kenn mën ko bët ku ko bëgg a bët bu ne ku ne sa sa bopp daa toj sa yow fi kanam ñëpp ci saay ci bati loolu booy boo seen xel kon nag nekk jub rek mu am njëriñ waaye sëñ moom napp ci lépp te kenn mën ko bët te fii nag laa doon xam ne loolu borom wax ne laa am néeg ko jàppee ci biir Touba daaru di kër si muy suñu kër ci Touba Touba di dëkk bi suñ caa doon ab dëkk la mënta am ñaari borom mënta am ñaari ñetti borom benn borom la moom sëñ Touba rek que mooy borom dëkk bii dëkk moom ba yow ma koy am incha allah ka fi doxit nag ak ab ka fi doxit nag incha fi ak yow ma ku ko bëgg a soppi ku daa daa ko déggal yow fekk maa ngi te bu loolu ma fi ne ndax li fi ne defuma ko fi dañ ma ko bëgg a yàq yaa yàqule ko ñëpp xam te daal te te te xam fii politique du fi may baat aw carte du fi may baat ab diplôme du fi may baat ab décision du fi may baat kenn am baat ku baat bi lislaam rek a fi sax baat bi yàlla bi di dëgg di alxuraan ak sunna ak tërëdin Sëñ Tuubaa moo fi sax ba yow ma xiyam incha allah te ku ko bëgg a yàq ku ne da nga fi kanam adduna yëpp te yéenoom kenn ak yàqule li ma yéene sax bu laa yéene julli yëpp li ma yéene sama bu doom laa yéene tër bi li ma yéene tër bi laa yéene julli yëpp ñun ñëpp lu tedd dund ci lislaam tedd ci lislaam dee ci lislaam dekk ci lislaam ku ne dekk àjjana loolu laa ñaanal yëpp moom laa ñaanal ñëpp yàlla na ko boole ngeen waaye fal addi seen xol addu du dara dañuy nax rek te yëngu-yëngu yi du dara yëngu-yëngu bu jëmul ci yàlla amul njëriñ te lu àddina yàq-yàq su yàq woo yow yàq rek bu jikko bu yàq yow rek ku xool ñu baax ñu la fa gis ku xool ñu bon la bu mu la seen mukk rek booy saxee rek da baax kon loolu rek laa dénk sama bopp ndax bisu bisu bisu itte waaye tabaski ngeen xam ni bisu jaamu yàlla la feet ci lislaam mooy dal feet bisu lislaam feetu lislaam dala yokk ak ragal yàlla rok yokkal ak jaamu yàlla yokkal ak gëm yàlla yokkal ak ragal yàlla waaye def ko ak bisu bisu fowukaay ak bisu noosukaay ak bisu ma yàlla tey da xam ne ci jaamu yàlla gi réyee ak payam yi di yokkoo ma yàlla gi noonu la lu ci waay def ma yàlla di lan la bàkkaar ba yokkoo loolu la ñu xam ab jullit feetu lislaam lu bisu noos ci moom bisu dellu ci boromam la bisu fàttaliku boromam la yàpp yi suñu borom wax na ñun ñëpp ni dégg ci alxuraan soxlu ko tey soxlu ko soxlu daal di nga tóor yàlla tàngale ko kon nag yal na yàlla nangu jullit yëpp ci saaxir ci baatin te jéggal nu te yàlla nan yàlla xool bëtu wéer na ndéem yal na yàlla xool bëtum ñeewanteem bi yal na xaal bëtum njëggalam bi yal na yàlla xool bëtum dimbalam ba dootuñu soxla ndimbal kenn te lépp lu bëgg dox suñu digg yàlla dox suñu lool lu bëgg yàq suñu lislaam wala suñu teel bi yal yàlla dox suñu digg lool yal na yàlla saxat ci la mu gërëm te musal ci la mu te yal na yàlla saxat ci Sëñ Tuubaa ci gëm ko sopp ko topp ko ci suñu dund suñu dee suñu lépp ci grâce Sëñ Tuubaa rek loolu Sëñ te du xool leen mukk duñ gore di mukk li ma leen waxoon fii ci koor gi barke beeg taal beeg wate yeeg loolu loolu bi loolu du loolu taxu noo jóg lislaam jii mu fi te sell ko yokk ko ba ñëpp gis ko ak taal bi ñu sax ci biir lislaam loolu mooy sunu doon loolu la ñuy sàmm li ci lépp du dara waxoon naa leen ko ci koor gi taax yeeg oto yeeg yëpp lu mujj fenn moo tàgg picc yi léegi bu bu ci kanam tuuti bu ñu xam ne sax ñu tàgg garab yëpp mu fees fi ñu gisu to même tàgg si lépp naa taxaw mu fa am oto yeeg tabax yeeg jigéen ñeeg ceeb yeeg yëpp tëb du dara loolu du suñu dono suñu dono mooy diine yi lislaam ak taalibe bi ak ngor bi ak jub ji ak jikko yu baax yi loolu mooy suñu dono loolu war a sàmm te góorgóorlu si maa ngi koy dénk sama ko dénk yëpp ñoo ngi ñaan nag ci yàlla suñu ci dara sëñ Tuubaa te ñaan sëñ Muntaxa yàlla nag fi yàgg lool te wér moog Basiru ak suñu kilifa yëpp ndax kilifa mënta ñàkk kon nag bu ñaan mu yàgg fa ndax xamoo lu ñëw ëllëg te sëñ Muntaxa mat na sëkk kaar yàlla na fi yàgg te yàlla bu ko gëmee jiitu yàlla na ko gëmee ko ay teggi tax yu lépp yàlla maam feewul nag waaye yàlla ko gën a feewul ñëpp ba aar ko ba lu mu sumb nu ànd ko moom te lu mu sumb rek ci lislaam mu àgg te du sumb dara lu jëm ci lislaam ci li fëgg mën na ku kaam da nga see ñooy te di ko déglu te di ko topp loolu mu wax ci bët bu faw ci tubaab la ko joxe mu ci digg tubaab la kon nag maa ngi ko yeesal ci taal bi yëpp taal bi bu xëy bala ngaa def daal loo mën ci alxaan na nga ko ubbi ko ngir jaamoo ko yàlla doon ci yaari isu wala yëpp boo noppee nañ ci teg man demul faw sëy na nga ci teg istinaaru daal na nga ci mu fàtteel bisim yooyu ñett bi ngeen koy saxalee àdduna seen àdduna seen laax lépp dana sax lépp dana jàpp waaye na ngeen di ubbi alxuraan mooy ndeyu téere yëpp te di ko def ngir jaamu yàlla te di ko settantal te di ko teel kem sa kàttan nga boo noppee na nga jàng is na nga jàng ma ma foo si boobu mu bu leen na ko saxal ak ak istinaaru daal ak ak loo ca mën doon waaye yooyu moom digg naa ku yaakaar Seex Awa Balla na nga saxal te yéen la waa ci jullit yëpp ndax parce que Sëñ Tuubaa moom jërul di daal moom fasal na boobu fasal na ñëpp fasal na jullit yëpp fas fàgg naa dina fàgg naa laxal boo defee li mu te teg ko ci pastifam te yéene ko yéene waa jullit yëpp nag yàlla nangu na ko incha allah kon maa ngi ko dénk sama bi ko dénkee ni jullit boo xam ne nga def ab jullit ubbi ko alxuraan te ubbi koo ngir jaamu yàlla kem kattan lu teg ci mafa matlum fawsin snabral xudaat mafaati al bisu yooyu dénk naa ko yéen waa kër Cheikh Abal ñëpp ngeen ñëw sant ak jullit bu ko jëfee neex na te nga xam ne Sëñ Tuubaa dara la bàyyi yent ba itam yooyu ma leen waxoon ba mbas mi tàmbali na ci at yaa itam bu leen ko fàtte allahu xayun samadun wa baaxi subhanahu soo kana fi waax wa nahnu fi kana fihi manihi min kulli shar maasun sanihi mustamsikin bil xiyaasi ahmada xayr la laan ma taan ma tulaa man xaalaxaa fi sama nil wabaay amanahu laahu min albaay nit day gëm ba ba ba ko feebar ba fi am ba tàmbalee ko wax mais ku ko sax tamit dëgg si yow te gëm ko yàlla mën na laa musal ndax wax si tubaab du loolu man man xaalaxaa fi sama nil wabaay wallaahi man gëm naa ko ma ngeen ko saxal mooy leen ci sëñ bi sëñ bi ci lépp wasalaam salaam sal xeena بحبل الله نجري همرا عن انفداع من ما يكون ضررا وبابن مسعود من المنام يا ربنا بحرمة هبازي وانصد هدد كل باغي بحرمة الحسن والحسين جني في نارهم نوري بحرمة الخاتم بحرمة كريمة هدم هل يلبس تكريما بجاهنا وبرفينا وسيدنا أمرنا وهم الذين يا هامي